Gagne Diop laa tudd. waaw xam nga ñun jëlaguñu programme wu def euh, ay formation ñun programme bi ñu jël mooy programme wu liggéeyal askan wi euh, donc dégg naa fi sax ñu wax ay financement ak yeneen ak yeneen mais ci li nga xam ne maanaam moo gën a gën a nekk suñu taxawaay du loo xam ni dañ koy def ngir kenn li ñuy def dañ koy def ngir mbooloo mooy bépp quartier boo xam ne dem nañ fa parce financement. soko defé defana loy delo la ñun dañu bëgg lepp lo xamni dañ koy indi ngeen mom ko tuddu ngeen ko delo ñun loolu moy suñu programme wax nañ ci marché soxna loolu lo ci ton ci walu sécurité ak lampe lo ci ko waaw loolu mom xana dama japp ni luy safara wu la ndax defana nima ko waxe sama biir wax neena jappon na ni suma ñëwé fi dañ may wax xalaat ay ay bëgg bëgg yu gëna kawé mbirum marché bi waye ku dem ci marché sambe ba gis liñ fa def tay nga xamni fi bis buñ fi jaaree jaar jall lay doon bu soobee yàlla buñ fi del si waatee waaw loolu nak du non xam nga xam nga nag euh, APR dafa yatou kenn ku nek nak gem gem nga am parce que dañu wax ni bo amé fukki xar man ngeen sam sàmm ci ben yat waye bu fekkee nga am fukki nit da ngay dag fukki yat kenn ku nek ak yat wanga koy sàmme donc kon bu may wax dina waxal président Macky Sall mais pour APR bu ma ci wax dafa am côté bu may waxee côté bi may waxee moy ci mouvement bi nga xamné séré nañ ko di di di ci liggéey monsieur le ministre Mame Thierno Dieng taxaw ci suñ ginnaaw ngir jàppaleñ ci lépp loo xam ne soxlay askan wi la foofu laay waxee foofu nag yaakaar naa ci kàttanu yàlla maanaam kenn duñu xam ci digée luñ dul def parce que lépp lu ñuy wax lépp lu ñuy bëgg bala ñu koo bëgg bala ñu koo wax dañ koy lijjanti ba ba am ko door koo wax te buñ ko waxee danañ ko def ci kàttanu yàlla maire bi laa la bëgg a laaj nga ci gànnaaw Abdoulaye Ka bu baax gis nañu cent et quelques marchés ñu ngi fi. Hmm. seen taxawaay foofu nan ngeen di jël programme ba ñu ne ci biir marché waaw xam nga programme mu programme maire bi moom c'est spécial parce que programme maire bi programme maire bi la mais kon man tey fi may jëlee kàddu mooy ci côté développement ak dëkk bi fi laay waxee kon dama jàpp ni question boobu pour ma tontu la ci tey. jàpp naa ne du yomb waaw donc. une question hmm. hmm. hmm. message boobu moom li ma ciy tontu defe naa mooy li ma waxoon ci njëlbeenu wax bi monsieur le ministre maam Thierno Dieng defe naa du réew mi ku politique rek mënoo tekk dara loolu du réew mi réew mi kenn ku nekk mën ngaa nekk ci secteur ba nga nekk. te bo beugé liggéey diga liggéey xam nga li am importance moy nekkal nit ko wax ay nit ñi gëm nga am sa nga mom sa cadeau li nga wax nga gëm ko tala wax def ko lolu moy l'essentiel bi lan li ci dess nak do ni ko ni ko sëñ bi doon waxe rek manam gaynde gi nga xam da mar bëgg naan wuti deg ba mom mbott mi nek ci wet gi ndig ngox ngooxe mom du ko tee àgg ci deg bi naan ba man dem yonam donc lolu la ci tontu ci lolu li waral ndajali mi moy am yité am ci yaakar akuk bëgg euh nu japp ne sunu dajee yëkkati sunu bëgg tënk ko ci ay kàddu teg ko ci loxol ki nga xamante ni saa borom dogal na maam Thierno yabal si ko fi muy alaaji ngañ saafara yooyu mm, dana dana dana dana dana dana yomb euh, loola nag lu ci bëree bari jim na bay yi mu mel ni. Euh, amagun ci dëgg dëgg dëgg lan soxla moo tax ñu di ko waxaat euh, danoo daje ngir bëgg ku ko ku former jigéen ñi defal leen formation waaye gune yu góor yi moom am nañu formation wax dëgg yàlla ndax ñoom ñëpp ay ouvrier lañ liñ manqué mooy financement looloo ñu tax a daje tey jii bëgg ku leen ku leen defal financement waaye itam ku defal euh, marché bi ay lampe ba mu am sécurité def fi ay euh, poubelle mbalit. Euh, ak ay buret yo xay man nañu transférer marché mbal mu sew mi diko ko ci ci popel ya ak ay zaratu ak ay pel lol lol lol tax nu daje bëgg euh, maam Thierno dégg ko ak li ci doli ko moy li nga xam japp na ni xagn président moko ko war a man euh, mu dégg muy mbedd min taxaw di mbedd mu mak mu tambalé fi jëm Touba Fall jar kër mam Cheikh rahman Fall gi ci umul khura way tambalé fi jar baqiya jëm. Euh, ali ba ba ba ba tidori fofu euh, mbedd la mo xamanteni bi ku fi dëkk xam nga ne sorti la bo xamne buñ ko défaré dina dina dina ak japp ne lool ci dëkk jolof waye ak ñi dëkk kayor ak ñi dëkk bawol seen ci magal gi ak seen ñibbi euh, ab sorti la bedd bedd bedd bedd sorti la maga maga maga maga mag ci lañ taxaw ni ñu bëgg kuñ ci jappalé lanke man nga def ko lanke mënu nga nga wax ka ka ko man demé ni mam demé demé demé ngañ mi Euh, lim ci man nako ci def waye xëy mënu ko ci waye la ci ci Thierno man nako ci def xëy mënu ko ci waye kan xani ke man nako nak deug deug deug bu ko sobe moy president de la republique mom lañ bëgg mu taxaw ci defar ko. Euh, sa bi ñuy lancé moom mooy lim ñu wax ci bi mi and ak ñun moy ñewuma pour def politique Touba bu ma fi duggu Serigne Touba defal Serigne Touba motax ak jàppale askanu Touba motax ñi nga xamni nak nag dañu taxaw di wax lo xamni ne si dañuy sànni ay wala dañuy taxaw di wax nit bu dé da nga nek ci dëkk tële jéem jéem dem muno nit ñew pour jappalé la man gëm na né da nga ko war accompagner encourager ko ci limi def mais do taxaw ji ko jéem fakassal wala nga am lenen loy def ministre mam Thierno dia dafa taxaw ni mom jëlul politikul mais nak amna ay xarit amna ay jarbaat yo xam ci lam nga xam ni mënu ko wona def ñom ñoo ko fi nekkal diko ko defal diko japp jappal tank fi ndax ministre président daf ko fal bimu ko falé euh sëñ sëñ sëñ sëñ

aussi ñëwal pour jéem a guut base ci dëkk bi ndax moom yàlla teral na ko ba noppi li mu bëgg mooy dimbali askanu Touba jàppale leen responsable yi nga xam ne dañuy nekk di wax nag loolu moom wax dëgg yàlla war nañ ko mën a bàyyi ndax moom dafa ñëw la nga xam ne dañ ko tëlee dafa ñëw pour accompagner leen ci jàppale leen ci ñu jox président Victoire incha allah ndax mosuñu ko def Touba